Mhm. d'accord maam tey bu ñu ñëwoon di la laaj tamit président Macky Sall fal nañ ko ci lu ñu mën a wax démb conseil constitutionnel génnee na résultat yi wax na ne ko jàll na premier tour tey soo amoon benn message boo koy lancé wala lu mu war a def ci cinq yi loo xam ne sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp lan lay doon. mu baal ñëpp. jéggal ñëpp du tontu nag moom du wax lu ñaaw waaye royal samaam président Senghor nekk majorité à l' assemblée territoriale Lamine Gueye opposé ko nekk le premier avocat noir mu dem ba yàgg mu tàllal ko loxo ni ko kaay nu fusionné sunu ñaari parti le parti BDS ak le parti socialiste ma jox la président assemblée nationale fab kenn ci sa mbooloo def ko ministre mel na samaam ci dëgg-dëgg ji xam ni jóge ak sa baay le président Abdou Diouf lu mu def moom itam yore majorité au Sénégal ñëpp xam ko l'ancien gardien de la constitution mu dem ba yàgg ni Ablaye Wade bi am vingt-six ans d'opposition baax loolu moom itam. Mhm. yaru lool xam loolu réew mi am njëriñ maa koy woo. ñu ko looy def mu ne dama koy def ministre d'État fab Ousmane Ngom def ko ministre fab Idriss Seck def ko ministre fab Aminata Tall def ko ministre def un gouvernement ci élargie majorité présidentielle Sall. ñooñu doo leen yées. moo tax jëm kuy nit ku baax bi nga tàllee sa loxo ni y' a de vaincu euh, vainqueur ni vaincu xam ne yow li li li nga gën a nit ñi rek mooy nu fal la au suffrage universel nga tàll sa loxo sa nawle yi tawle ndoxu Sénégal yëpp ni ñëw leen di jubboo bokk ndey bokk baay ah ba noppi danaa ci boole sama papa Abdou Diouf danaa ci boole sama papa Ablaye Wade. mi xam ni mooy sama baaya ñoom ñëpp dinaa jël seen xel boole koog li ma yore pour Sénégal yépp nekk ci jàmm jeunesse bi am liggéey jigéen ñi mën a noppalu góor ñi mën a noppalu loolu day sàll noonu li ciy gërëm ak di la sant ndax ca dëgg-dëgg fi nga jaar ba yegg si gërëm nga yàlla ancien président de l'Assemblée nationale ancien premier ministre <laughs> jaar foofu ancien ministre ancien <laughs> ancien ancien ba ni ñëw tey ni le président de la république sept ans nga ne sept ans de boo ko defee ba pare bëgg naa un mandat de cinq ans boo xam ne dootuma présenté kon de yow delloo nga yàlla njukkal yàlla mi ngi delloo njukkal nag mën na la fay lu xam ne wallahi doo ko xam lu mu lay fay yaa dajeeg pétrole <laughs> yaa day <laughs> yaa dajeeg ca dëgg-dëgg pétrole yow yaa ko daje ak gaz kon nag dëgg-dëgg yàlla mi xam ni moom rekk mooy buur yàlla na la jàppale ba ñëpp nekk benn bokk ndey bokk baay jeunesse bi li nga bëgg ci ñoom yaa na ko yàlla mottali li nga bëgg ci jigéen ñi yaa na ko yàlla mottali li nga bëgg it ci les retraité comme Mansour Mbaye yaa na ko yàlla mottali na nga xam ne nag kenn jàppalewula sunu bopp tabaraka wa taala mu xam ni mooy buur moo jaar ci ay nit seen allahuma yàlla nangu ko gërëmal kilifa diine yi ci réew mi yëpp gërëm sénégalais yëpp comme ni nga ko defee gërëm sénégalais yëpp yàlla mi am ndam moo la jox ndam kon sa ndam li yàlla sunu borom tabaraka wa taala def ci mu ndox mu sedd guy dara bay yëngu ci réew mi lu dul jàmm. d'accord euh, booy maa ngi dégg ak nga ne mu baal ñëpp suba xalifa Sall am ñaari at ci kaso bi lan ngay wax président est-ce que jotul tamit mu baal ñooñu ñëpp tamit. dina ni naa na baal ñëpp rek. Mhm. waaw ndax président nag du président tribunal. waaw président <laughs> de la république gardien de la constitution. Mhm. ay magistrat nooy tëj président de la république du tëj waaye nag am na loo xam ne moom rek la ko yàlla jox mooy lan mooy grâce ak bale baalal ñëpp sàll di la yàlla def loo war wax alhamdulilahi rabil alamina sant sa waajur ak sant peuple sénégalais